pour lui montrer les problèmes d'encombrement qu'on a. Mais il faut savoir que la nature a horreur du vide. Donc avant de demander, de demander ces déguerpissements, parce qu'on invite la mairie, l'État, les autorités à une collaboration, on est des responsables et on veut que tout se passe dans la légalité. Alors des gens m'ont dit que tous ceux qui sont euh, en installation ici ont des autorisations. Personne ne va s'installer comme vous voyez là, mais seulement on veut que l'on rende au public ces, ces espaces-là pour des promenades. On a donc préparé l'aménagement de tout ça pour que dès qu'on aura enlevé ces aménagements, ces installations, pardon, on puisse aménager des espaces dignes de ce, de ce quartier-là. Également pour le terrain de la boulangerie jaune, on, on, on se concerte avec la mairie pour l'aménagement du reste du terrain et on voudrait que ça se passe vraiment en toute collaboration. on les y Maintenant, on va euh, demander directeur de Agéroute Dakar e. de, De, attendez, attendez, de, de venir faire le tour avec nous pour qu'on lui montre les sites à déguerpir. merci encore waaw léegi li may wax rek mooy que ni ñun lii yëpp dañu bañ a ñu déguerpir ñuy bàyyi euh, espace bi noonu dañ ne donc préparer nañ bu yàgg ak en collaboration ak pas mal de de de de professionnels ay architectes ay urbanistes ak yooyu yëpp des aménagements pour deux voies yi pour espace yi des yëpp ba nga xam ni euh, bu ñu jëlee nii rek wane nañ plan bu rafet boo xam ne wan nañ ko euh, euh, gouverneur wan nañ ko préfet sous préfet ak autorité yëpp ak mairie bi bi ñu invité ay travailler pour travailler ci ak ñun léegi terrain boulangerie jaune bi tamit dañ ne nañ ci waxtaan ak mairie bi pour aménagement li ci des après Auchan bi pour que waa quartier bi yëpp gis ci seen bopp ñu bañ ko def quelque chose de de purement euh, commercial rek mais nañ ci concerté wu et puis ñun CDL bi ñu participer ci aménagement espace comme ci aménagement terrain boulangerie jaune bi yëpp ñu jiital ñu ci. voilà jërë ngeen jëf. un mot sur le e. waaw. nguur euh, man Pape Saliou Thiam laa tudd je le secrétaire général adjoint du CDL voilà le commité de développement local de Sacré-Cœur 3 voilà ñun dañuy invité nguur gi état bi euh, mairie bi ñëpp pour ñun ñu toog autour d'une table daa di waxtaan ci ni ñu bugg Sacré-Cœur mel ko ñu won leen li ñu préparé ñun ñu liggéey ceeg ñun voilà léegi nag pour bañ a guddal dañu bugg a def tuuru entretien di seen émission boo xamante nag Tawfekh Production moo leen ko indil di dalal ay kàngam yoo xamante nag ñoo xam ñu nekk ci làngu politique yi wala ci wàllum koom-koom bi wala éducation soxool na actualité réew mi ak lépp lu jëm ci wàllum rek li suqali réew mi loole nag mu nekk loo xamante ni day am ci seen Tawfekh Production mu nekk émission boo xam ne képp ku mu yitteel mën nga woote ci numéro téléphone yi di 77 792 50 43 wala boog nga jël numéro téléphone bi li 77 251 04 05 mbokk yi émission baa ngi képp ku mu itteel nag bul ko wute te mbokki internet yi bu leen ko tàddee benn yoon ndax lépp lu jëm ci wàllum décryptage jàngal leen au lépp lu soxal actualité réew mi dañ ko ci waxtaane ci biir émission bi direct entretien ci Tawfekh Production